ginnaaw ab at bañ sampee seen kuréel gii di alliance pour l'émergence du Baol ñoom ñi la dee def nañu ba assemblée générale la Babacar Mbaye di dikkaat ci social bi nga xam ne yëngutu nañ ca. un an la moo tax ñu commencé si li ñu def daaw jéem a egg ba nga xamante ne fi fii ñu toll bi tabaski jotee aussi Ndiaye Bambey indi na fi soble indi na fi pompiteur joxe na fi ay xaar aussi Ndiaye Bambey wut na ay kaar am na ñu mu jox ay paas. ba pare safar nañ jënd na ñetti nag teg ci li ci war a ànd lépp ñu safar pour liggéeyal Serigne Touba. ci màggal bi am na ay ñoo xamante ni tabax nañ fi daara lew na daara ñoo xamante ni dañ ñoo waxoon ne wax dëgg yàlla ay xale dañ fay bi fa xale yi di jànge daara ji bu taw bi bu nawet jotee day taw di senn biñ ko ko waxee aussi dem nañ defar daara ji ba inauguré nañ ko. ba jébbal nañ ko ñi nga xamante ni ñoo ñoo moomoon daara ci commune bi am na ay communes yoo commune boo xamante ni commune de Caxar la nekk dafa amoon jumaa boo xamante ni jumaa bi dafa amutoon ay rajo ak ay moquette ak yooyu bim ñu ko waxee ñun ñi ñoo fa demoon yóbbu maquette yi. ñun ñoo fa demoon yóbbu yóbbu yóbbu yóbbu yóbbu rajo yi. ñi wàllam njàng mi nag kenn demul ñu des ndaxte Thiam mii xamle na ko. intérêt ni je voulais enrôler des enfants euh, dans la mutuelle bi nga xamante ne ni solicité naa ci autorité yu baree baree baree bari loolu antuwul mais la première fois ma wax ko Ndiaye Bambay. xamal ko ne ko y a des enfants des fils de Bambey qui son dans les écoles et qui ont besoin d'être enrôlés dans la euh, mutuelle pour leur santé Grand Ndiaye bés boobu ci minute yooyu dafa nangu projet boobu ñu koy wax. jigéen ña moom jot nañ seen wàll bu baax ca ndimbal ga bu ñu sukkandikoo ci nguy faama mi leen jiite dara am nañ financement boo xamante ni dafa jóge FONGIP. ñuy profité ci occasion bi nag euh, di remercier bu baax directrice FONGIP muy euh, Thérèse Faye Diouf jox ñu financement bu toll ci 10 million ñu daal di koy jox jigéen ñi nga xamante ni ñoo ngi ci biir alliance bi jigéen ñooñu tey kenn ku ci nekk commencé nga sa liggéey bu sew boo xamante ni yaa nga ca kon loolu nekk na njariñ boo xamante ni dañ koy santé Mamadou Ndiaye parce que xëy na jigéen ñi yàgg nañ fi te xëy na genre financement yu demee noonu ma suñu ko am te loolu c'est dafa dafa nekk commencement ndax des na leneen loo xamante ni mu ngi ñëwaat ndax dañuy fas yéene yaatal ko ñu ne du yem foofu ndax ku ne njaboot nga ne jigéen te ku jàppale jigéen jàppale nga njaboot ñu ne dañuy créer li nga xamante ni moo di ay calebasse de mooy leketu yokkute leket yooyu dañu fas yéene koñ bu nekk ci biir Bambey ñu daal di fay dugg installé ko jox jigéen ñi départ boo xamante ni dañ ciy jàpp di wëlbati nekk ci loo xamante ni tey bu ñu commencé li nga xamante ni moo di seen liggéey bu ndaw ëllëg dinañ ci mën a dinañ ci mën a gën a sori kon loolu nekk. Ndiaye Bambey yi doomu Bambey la Bambey rek moom moo ko tax a jóg Babacar Mbaye Guy Fama ak ñoom ñëpp loolu la ñu wax. yow te moom mi nga xam ne mooy def lii saa bu demee Ndakaaru du DG du ministre amul benn ndomba tànk. mais day dem di wuti parce que nee na li président de la république liggéey si dëkk bi moom ñaanatul yàlla di xaar kenn ñuy ñàkk Bambey te pour ñu bañ a ñàkk bambay mooy il foog ñu animer parti bi. ak bambay waaye moom foog naa ne ba Amérique day joytu doomu Bambey ki nga xamante ne nii doon na ko te loolu il en est fier ñun. dañ ci kontaan ci moom di ko ci pousse di ko ci jàppale. di def une mention spéciale nag à Ndiaye bambay mënuma ko bañ a wax. parce que dafa nekk ndaw ndaw boo xamante ni dafa teel a xam lan mooy politique. parce que nit ñi dañuy yaakaar ne politique tey mooy nga am rek loo xamante ni ci sa bopp nga koy awale wala nga am tour boo xamante ni xëy na dañ lay dégg feneen moom dafa gis ne politique mooy nga jege sa askan. politique mooy nga dimbale sa askan politique mooy nga amal njariñ ñi nga xamante ni tey yéen a dëkk. te loolu depuis bi ñu commencé ba tey moo ngi ci ñu ko ci sant bu baax di ko wax mu ngi ci yoon bi. buy faama mi leen lam ca teg rek moom moo di leen. ñoom ñi leen seen président ak seen candidat moo di Macky Sall jox nañ leen lu toll ci juróom benni téeméeri carte ngir ñi jaay ko. lu ñuy liggéey pour président Macky Sall la bu ñu xëyee suba ba ngoon jot lu ñuy dox ñu alliance pour l' émergence du Baol c' pour le président Macky Sall te ñun dañuy porter candidature am tey suba ba ginnaaw suba ànd ko ak le coordonnateur monsieur Mamadou Ndiaye. xeexal le président Macky Sall fii ci bàmbe ba nga xamante ni dina dellu dina toogaat continuer li nga xamante ni mooy un Sénégal émergent continuer li nga xamante ni mooy liggéeyal jigéen ñi liggéeyal askan bi liggéeyal ñëpp ñi nga xamante ni ay sénégalais fii de l'intérieur et de l'extérieur. ñoom ñi lee di ñooñum Ndiaye Bambey daje woon nañu buntu kër Ndiaye Bambey ngir nag xam xamle li nga xam ne nag moom moo di seen ab bilan bi ñu def tonné nañu fii ak weer bi ñu jëm ci koor gi dinañ defaat.